salaamaaleykum àdduna wërngal këpp nuyu nañ leen ziar leen ñaanal leen sant bu baax ngeen di ak kontaan ci ànd bi ngeen àndal ñun ci tegtal TV euh, di leen wax ne ñëwaat nañ ci jotaayu njëriñ ñu ñëw fii ci Guédé Bousso seet si fii koo xam ne que ñu ngi koy wax Serigne Cheikhouna Bousso di boroom xam-xam di ku nangoo sonn ci xam-xam te xam-xam jaral ko lu ne mu dem ba fu ne ci àdduna bi jàngi fa doon gëstukat doon ku mandu ku tey ku dal nga xam nag euh, xam-xam jaral na ko lu ne mu yor daara alxuraan tey nag dinañ ko laaj bu baax a baax euh, lan mooy cosaanu gede ak alxuraan ak yëpp ndax moom loolu mooy waara alxuraan ci lay nekk guddeeg bëccëg suba ngoon sëñ Cheikhouna Bousso ñu ngi lay nuyu di la siyaar ci Tektal TV looy nuyoog àdduna wërngal këpp bi lay seetal bismillahi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammad wa man wala jërëjëf sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu site bi ngeen àndal muy Tektal TV di nuyu euh, mbokk yëpp yi koy seetaan di ñaan yàlla site bi yàlla yokk ko ba mu doon télé bu mag a mag euh, ci barke euh, borom bis nga xam ne ak ci barke bis yi ñu toll mooy bisi safat yi mm-hmm. kon nag loolu dañ koy nuyoo rek. bu ko defee baax na buñ na fee leen jox jërëjëf euh, sëñ Cheikhouna Abdou Sow yow ñëpp xam nañ ne boroom xam-xam nga te xam-xam jaral na la lu ne léegi ñëw fekk la fii ci sa daara sëñ Cheikhouna Abdou Sow imnu sëñ Sidi buso sëñ Cheikhouna buso Sow buñ la bëggoon laaj yow kan kan mooy sëñ Sidi Bousso kan mooy waa juróom kan mooy sa maam yaay kan. pour ñii seetaan xam kii ñu ko seqal ba pare ñu soog a dugg ci nga waxal ñu lan mooy cosaanu gédé bu buso ak gédé ak màggal nan lan mas a cosaanu waaw jërëjëf sëñ Cheikh euh, li ma ciy dolli tuuti rek mooy di la sant te di la gërëm mm-hmm. di xam leen rek moom mii maa ngi moom ñoo bokkoon daaree alxuraanul karim ca Ngaay Mexe bokk nañ daara lu ëpp juróom-ñaari at nekk nañ ko maa ngi moom Euh, maanaam daal 1992 huitième mois 22 1992. Hmm. ba 1999 maa ngi moom ñoo bokk génn kër gu ñuy fanaan. bis bu yàlla sàkk ñi gisante bis bu yàlla sàkk ñi nekk. kon loolu it mat na cee leeral. ndax lu am solo la. illa yéen a baax rek. mooy yaay kilifa gi nag. dëgg la ah, euh, ñun dañoo bëgg a baax. Hmm. yàlla boole ñu ñu baax. Hmm. kon mooy aw sas la pour ñu baax. mais jërul sax ngay wax sëñ Cheikh. day wax Cheikh mu ñàkk solo mi rek <laughs> ñu ay taalibe ndax euh, moom. dafa baax trop nasa masa sonn ci xam-xam mu jaral ko lu ne ay at nag mu réer ma dem na ci àll bi Égypte fu ne mu dem fa jàngi ba nii nag xam-xam rek lay dundal moo tax ñun bu ñuy fësal dañuy bëgg fësal ñi nga xam ne que jar nan ko te boo leen fësalee seen xam-xam li ñu yokk ci réew mi ak li ñu jëriñ ci réew mi daf koy jar moo tax fi nekk nii ñu bëgg li nekk ci yow ngi génn ci lu bari moo tax may laaj xam nga xam naa yaay kan mais damay laaj yaay kan ba pare nit ñi soog a xam ki ma jàdd foofu sax. Mm-hmm. mooy mooy ñu bari bu ñu la gisee xaj na ci télé yi ak yooyu duñ moom sëñ Sidi Bousso. moom sëñ Sidi Bousso moom sëñ Moulaye moom sëñ. Mawlaay Bousso. Mawlaay Bousso. Hmm, moom sëñ Mbacke moom sëñ Mbacke Bousso. waaw sëñ Mbacke Bousso mooy fondement bi. waaw noonu la demee waaw. Hmm. Hmm, waaw euh, léegi. Euh, bu ñu la doon laaj yow fan nga jànge daara ci tënk. yaay kan ba léegi fi nga jaar. loolu moom loolu xam nga ci lu bari yow xam <laughs> ndax maa ngi jàngi dëkk bu ñuy wax Ngaay Mexe. Ngaay Mexe. alxuraanul karim njëkk ba fay dem nag jàng na baaga suratu Shura. suratu Shura waaw <coughs> ak jàng na baaga. fa lañ ma yóbbu fa laa àggale ba 1999. Mhm. ma ma ma ma bàyyi koo fa. Mhm. dikk fii ci Touba di fi jàng xam-xam. Mhm. majalis. majalis diggante 1980 maanaam deux 99 boobu. Euh, jàng xam ba 2007 daal. ci laa fi jógee nag dem Égypte. waaw foofu laa mujjee jàngee waaw. waaw diggante boobu daal laa jaar bu dee Sénégal fii ni mosuma fee jàng école li ma fi doon jàng lépp moom njàngu majalis rek la woon xam-xamu majalis waaye nag ba li ñu ciy jàng programme bi àggaloon nañ ko mm-hmm. waaw mais daal ngaay mexe nga mokkale alxuraan alxuraan moom fa laa ko mokkale fa laa bind kaamin mm-hmm. yóbbul ko sëñ Saliou <laughs> ndax sëñ Moudou Diop tamit jàngale alxuraan jàngalekatu alxuraan la boo xam ne euh, que ku jàmbaar la te bu la yaree foo dem ñu naw la bu la jàngalee foo dem ñu respecté la kon ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ndax léppam ci xam la ko a def ak yar nit ñi ak euh, tarbiyo leen ci alxuraan ak mbind mu rafet njàng mu rafet lépp daal dafay set ci daaree ngaay mexe kon ñu ngi koy gërëm bu baax di ko ñaan mu yàgg fi loolu te ànd wér léegi li indi nga samp daara nag lan moo ko indi ci Guédé waaw daara ji moom dama koo doon. dama koo doon. Hmm. sama waajur moo ko yoroon daara ji. Hmm. moom moo ko tabax. Hmm. ñi fi nekkoon di jàng ak yu demee noonu. ba mu fi jógee nag moo tax ma nekk fi fi mu ne nii. waaw waaye teewut moom it mën na maa ne daa doon daara ci waajuram waajuram doon daara ci waajuram. ba ci sëñ ba loolu mënees na daara waaw. daara ji lu ñu fi xëy di jàngale comme internat wala. waaw yan alxuraan lañ fi jàngale. alxuraan alxuraan karim ak xam-xam. ak xam-xam ak xam-xam waaw. Hmm. Hmm, am na dongo yu fanaan ak yëpp. waaw waaw dañuy la. waaw bi mu nekkee say loxoog léegi. à peu près day jëf. Euh, moom it yàlla def na wax dëgg yàlla wareesoon na ko xam nag. Hmm. waaye xam nga suñu daara yi ak suñu jom ni ñu yare léegi la naan lii laa mokkale ci léegi la gën a xew waaye ñoom lu ñu daan def sax dañ ko daan nëbb bëgg nga muy siiw mhm. waaye jàppal ne rek mhm. at mu jot rek ay nit danañ fi mokkal ay nit danañ fi nekk na juróom benn at waaw waaw day am jigéen ak yëpp eh, déedéet ñi moom am ay benn benn waaye du du du essentiel daal. Mhm. buñ sañoon sax nag day dakk ndax. Euh, mhm. borom bàyyeewu ko woon noonu. xam na ay ñeenti jigéen ak ñu mënta ñàkk rek. Mhm. ñoo xam ne da leen cee dugalaale waaw. dañ cee ay góor ñoom ma fi nekk. comme ni mu ko waxee li xam li xew léegi. Euh, wut ay aide Arabie Saoudite. Euh, war nañ ñi moo waral léegi parfois ñi naan lii mokkale nañ fi ak yooyu mais ñoom cosaan bi ñu jaar mooy lii mokkal dañuy bari ñiy jaar ci dara ji dañuy bari parce que nit ki boo demee li ma koy wax rek. ba say résultat nga mën ko wàññi rek dafa tuuti kon ñii moom dañoo dëkk ci ñu fi mokkale kon daaray royukaay la ci ku xam gédé buso xam ko ci alxuraan ku xam gédé buso xam ko ci yar ak teggin ku xam gédé buso xam leen ci sunna boo nu bëggoon wax lan mooy cosaanu gédé buso ba da ngay dégg ku naan maa ngi màggali xaaral ma dem gédé mm-hmm. mbuutu gédé dëgg dëgg boo doon wax li fi nekk li nga ci mën a feeñal ñu mën ko wax ci orma mën a teggin ñu mën ko wax mm-hmm. lépp ci mbootu gédé loolu wax mm-hmm. jërëjëf sëñ Cheikh déedéet dëkk bi fi mu jugee. Mm-hmm. ñetti wax da cee am. ñetti wax. am na ñu wax ni eh, ñu ngi ko mi ngi ko tuddee Gédé ga ca Fuuta. Gédé ga ca Fuuta ndax bul fàtte ne sëñ Tuubaa eh, ñoom sëñ Mbàkke bu ak maam Jaara maanaam seeni maam foofu lañ jugee woon am na ñuy wax loolu. Uh-huh. am na ñu ne benn déeg woon bu fi ne woon moo tax ñu tuddee ko ko. Mm. am ñu ne déedéet ku daaw saniye ga ca Makkatal Mukarrama moom lañ ko tuddee. ñetti wax mm. yooyu yëpp am na ci. ñetti ban moo ci wér. xam naa bu ci nekk. boo <laughs> jàpp ne moo gën a wér. xam naa ci histoire moom. Mm-hmm. ndax bu ci nekk ay kilifa ñoo koy wax. ay kilifa ñoo koy wax waaw te léeg-léeg yu demee noonu. Mm-hmm. seenu daje. Mm-hmm. mën na wuute gi mën naa am. mais benn la. te lépp doon lu wér te lépp bokk cosaan lu ñu jugee. loolu lépp day mën a nekk moo tax. waaye waaye ah. ak ñëwal ak yegsil la dëgg la. dañ lay woo waaw bu ci nekk kilifa ko wax. waaw waaye xam naa déeg bi am na ñu koy wax ba dañuy joxañ ne barab sàngam la newoon. bu dee fuuta ga ca gede it gede fuuta it comme maam yeeg yu demee noonu am na ñoo xam ne fa lañ jógee woon mm-hmm. loolu day yenu maanaam waaye bu dee ku daa ustan yi nga xam la nekk sëñ Mbàkke Buso ak ni mel mm-hmm. euh, ci xam-xam lislaam yooyu da ngay xam ne ñaar yëpp kon ñett yëpp bu ci nekk jamtal na jamtal na doon loo xam ne finis li kii la waaw balaa boobu li may àggale ci gerte tuuti mooy mm-hmm. euh, Euh, moom nag euh, sëñ Touba moo ko digal mu sànci ko. Hmm. mi ko sànci ci li gën a wóoree 1916. 1916 waaw am na ñuy wax 18 ba 18 ji sax moo gën a sii waaye 1916 la. 18 ji li ko waral rek mooy euh, sunu benn maam bu ñuy wax sëñ Mokhtar Bousso dafay njëkk a juddoo. sëñ Mokhtar Bousso waaw bu ñu waxee rek ñu ne Gédé moo fa njëkk a juddoo. Hmm. moom sëñ mu Diop moom moo ñu moo doonoon sëñ ñam. moo doonoon sëñ sëñ Modou Diop waaw. Hmm. buñ dee wax rek dañ naan moo fa njëkk juddoo te mu judd nag loolu tax nit ñi teg na 18 la waaye 16 la sëñ Assane Bousso bind na ne muy foo xamante ne si suuf su la sëñ Assane wax na ne boo demee ba dëkk bu ñuy wax xadaayiq moom moo doonoon ay toolam 11 kilomètres la nee na lu fi nekk rek sëñ Mbacke Bousso moo ko sanc hmm. ci diggante bi nee na loolu la wax magam nag di sëñ Modou Bousso moo ca dolli hmm. képp ku fi am rek tey mbokkam wala murid waaw sëñ Modou Bousso sax ni mu ko gën a yéeme hmm. dane ardun arida mooy suuf soo xamante ne si su yaatoo yaatu la ndax 11 kilomètres xam nga lu bëree bëri la bu njëkk nag Gédé lañ daan wax ak Touba hmm. ndax booba àll dafa amoon ci diggante bi hmm. bi ko sëñ sëñ Touba dafa wax sëñ Mbàkke Bousso demal nga sanc ko soo ko sancee bu sama jumaa ji àggee ngay a jógee foofu di am na benn naaru gànnaar boo xam da doon way bi muy way Gédé ak ni mu demee Touba dane wa baynaha wa bayna noonu la ko waxee doonte léegi ci Touba la ndax dëkk bi màgg na ba ëmbaale ko waaw nee na wa baynahu wa bayna Touba miilu wa in yazid fa sayduhu qalilu digganteem ak digganteem ak Touba mm-hmm. nee na miil la mm-hmm. bu fekkee ëpp na miil ne la lam cay teg du bari miil ak dara daal nga xam ne mooy ñaari kilomètre kon loolu bokk na ci li nga xamante ne si moom mënees na ko yokk ci gerte ba tey mm. sëñ Bakk Bousso nag bari na barab yi newoon ak ak Touba mm. maanaam janub bi sud mu ci Gédé hmm. léegi nag euh, foofa moom yàgg na fa lool 1902 fa la ko nekk ba 1916 googu noonu hmm, kon yàgg na fa mag ñu bari it fa leen jàngale ci ñi ngi dégg ñu jàngal na leen hmm. waaye fii nag moom fi la àggale euh, léppam ba génne fi àddina bañ denc ko fii ci biir Gédé kon loolu mënees na koo jàpp ci Gédé ah, léegi gi moom sëñ Mbàkke Bousso tax ñu bari lañ koy wax rek wala ay turandoom ñu ci ëpp it Gédé lañ leen wax wala sëñ Gédé comme ni nga Oh, sëñ Mbacke Bousso nan la mbokkoog sëñ Touba waaw bu dee ci wàllu mbokk gi xaj na euh, sëñ Bousso bi mii waajur mu góor mu mm-hmm. soxna Jaara Bousso dañoo bokk nday ak baay maam mm-hmm. Fati Balla al Kubra mi nga xam ne mooy waajur mu jigéen daa bokk ak Mamour Anta Sali benn baay nga xam ne ñoom ñaar ci mbokk rek niñ ko mën a waxee ay doomi bàjjen lañ ci ay doomi nijaay lañ ci mm-hmm. waaye nag yàlla def na it ci euh, murit ci murit daf ci liggéey sëñ Touba loo xam ne sax euh, liggéeyal sëñ Tuubaa mbokk gi taxutoon mu jàppee sëñ Tuubaa mbokk ba du jariñu ci moom mm-hmm. waaye sëñ Tuubaa it ginnaaw li ko yàlla joxoon mu mm-hmm. euh, nangul na ko mbokk gi moo ko daan wooyee yem na xaali wa amati yi am na xasida moom daf ko ko yóbbante mm-hmm. di ko ci wax ay kii ak yooyu noonu di ko ci tàgg ak sëñ moom sëñ Tuubaa ma ngi ko tàmbalee te aussi ka yem na amati yi wa xaali wa fusta bil ixraaji wal idxaali loolu mooy maa ngi lay dénk yow sama doomu bàjjan yow sa doom yow sama doomu nijaay ñaar yëpp ndax ñaar yëpp am Euh, kon loolu dina am solo loo xamante ni si teewut nag ci geneen anam nag ci jëbal ak doon taalibe loolu moom bu ko daan bindi leetal it al muridu sadiq wal adibu saalih mhm. loolu la ko daan wax ba tey kon ñaar yëpp nangul na ko mhm. mhm. macha allah kon euh, kooku mooy sëñ bu Bousso euh, léegi gédé gis nañ ne dafa baaxoo ak alxuraan gédé baaxoo ak julli ñu waxaat tamit ne gédé dafa am montre boo xam ne ko daal xam ñii dañ naan xoolal ma quinze heures nangam jot na hmm. quatorze heures jot na hmm. heure bi jot na séntu weer bi hmm. ker gi bu tollee yi war nañ julli moom euh, get montre géde bi montre bi ci géde bu ma doon laaj montre bi rek sabab bi lan la ak lu ko indi ak lu mu indi ci njëriñ montre bi euh, ma njëkk montre bi doo ko dem ci alxuraan waaw ñëwal ci montre bopp waaw kay montre bi euh, Sénégal ak réew moo gis ci àddina mën ngaa wax ne dafa am temps local waxtu woo xamante ne si mooy waxtu boppam woo xam ne moom moo koy jëfandikoo ak waneen waxtu woo xamante ne si def ko bokk ak waa addina bi yëpp mm-hmm. ñu naan ko temps universel réew yu yëpp nag boo fa demoon tey dafa am seen temps universel am seen temps local mm-hmm. moo tax na ma koy faral di misaali tey boo demoon se réew yi ca penku tañ sori lool mm-hmm. ay Arabie Saoudite ak yooyu wala ku jëm penku ba Iran ba Afghanistan jëm ca kaw yaa ah. loo gën a jëm penku Euh, heure bi gën a kii. loo gën a jëm penku. Hmm. Arabie Saoudite Afghanistan ba da ngay àggee Sapon wala Siin. Hmm. loolu laa bëgg a wax foofa soo fa demee. Hmm. xale bi mujj judd. su déggee ñu ne midi am na ci temps universel bi. moom dana xam ne midi boobu moom taxu ko jug ndox su bëggu te euh, maanaam bu boobaa. ñoom ñoo jiitu fuuf. Euh, timis sax mën na faa jot lu gën a penkoo rek ñooñu mën nañoo raw a raw baag timis sax su boobaa te ñu ngi naan midi. te midi li firi mooy digg bëccëg kon su boobaa xale ba mujj juddu foofu du jël ñi koy jàngal ci école naan ko am na lu ñuy wax temps universel ak temps lu ñuy wax temps local soo demee jëwi yi mujj ci yëpp ba demee ba jëw ci Amérique ay bidis léegi hmm. yi mujj nag wala réew yi mujj ca sow ba tey boo fa demoon it daal ne midi hmm. ñu ne midi ci temps universel bi jot na hmm. ñu ne temps midi am na ci temps universel bi euh, foofu noonu gone ko fa mujj judd dana xam ne midi boobu bokkut ak midi bi nga xam ne mooy temps local ndax la ndox suba moo fay jot suba baax te midi li mu fi ba tey mooy hmm. digg bëccëg gi bu dee fële nee la guddi mën a jot wala ngoon hmm. bu dee ñële suba fay jot hmm. ñun Sénégal nag boo nee midi fii rek ñun Sénégal boo waxee baatu midi rek ñu jàpp ne léegi añ jot waaw <laughs> ñun ñu jàpp ne midi boobu mooy suñ midi midi li mu fi mooy digg bëccëg ana lu ko waral la ñuy xatt boo xamante ne si dañoo jege jege gi mu ñu jege nag tax ñun réew Afrique yi néew doole hmm. ñu daal di renoncer bàyyi suñu heure temps hmm. loolu a hmm. ba jant bi nag buy am fii euh, buy am fii une mooy jot maanaam temps Greenwich boobu nga xam mooy temps mondial temps universel bi. Mm-hmm. rawe temps xam nga soriwuñ looloo tax ñu fas ko bàyyi rek daal loolu moo andi. Mm-hmm. jafe-jafe ngay dégg léeg-léeg ci ville nekk Sénégal. Mm-hmm. nga gis Touba di julli 13 heures. ay 30 nangam wala 40 nangam. ñee dem ba 2 heures 15. ñii dem ba 2 heures 15 ñii loolu moo ko waral. fii ne bu dee ci temps local du Sénégal boobu ñun la. tey moo tax foo mën a dem ci àddina bi Arabie Saoudite ak yëpp da ngay gis ne midi demi la ñuy julli hmm. bu fekkee seen temps local de temps 12 ko war a julli ci digg bëccëg gi léegi nag euh, loolu euh, suba ba mooy midi kon mooy xaajeel bi hmm. kon julli une heure boo ko déggee rek temps universel bee ko waral waaye midi la war di julli moo tax mag ñu bari fii ci Gédé hmm. euh, tey jii boo leen laaj ñoom da ngay teg ne seen montre dafa retard ndax midi nangam lañ lay wax fii may waxee yow Euh, fi ni ñoom ci 15 heures 46. Mm-hmm. ñoom 2 heures la ñuy wax. 2 heures la ñuy wax maanaam 14 heures 46 lañ lay wax su boobaa. kon ñoom waaw léegi nag suñu bàkk bu so nag loolu ko lijjantee. Mm-hmm. mooy daa mis wala bu ñuy wax ab mm-hmm. boo xamante ne si moom la samp. lu mel ne bant lay doon. fukki weer ñaar yi nga xam ne moom la at mi am yëpp jant bi saa su nekk penku lay jóge daal di jëm sowu. Euh, euh, moo xam wetu ndeyjoor la lay féete tuuti wala mu nekk sa digg bopp bi buy ñëw wala mu féete la wetu ne jant bi dafa jóge penku yow yaa ngi jàkkaarloog penku mm. bi mu dikk nag ndeyjoor la la féete tuuti jëm sowu mm. mooy waral réew yi nga xam ne dañoo féete nii nga gis ñi nekk ci seen tàngoor mm. ay Afrique du nangam nangam euh, yooyu noonu ba ci ay Éthiopie a laal tuuti ndax da leen di jege su boobaa jant bi nag bis yàlla sàkk bu boobaa bu jublu penku jëm jëm day gën di andu si di gën a jege suñ digg bopp yi ñun ñi dëkkee ci Touba masalan day dem ba yàgg dañuy jéggi bi seen moom penku rek lay jógee jëm sow waaye dana ne si ñu tàng la doon mm. nekk ci ñee nekk ñee sori na leen léegi ñii la jege kon ñee ñoo nekk xam ne nag dañoo jege li xattu istiwa mooy di euh, rëdd bi jaar si digg addina bi jaar Gabon ak réew yi demee noonu mm. moo tax ñun suñu tàngoor méttiwut suñu sedd méttiwut mm. maanaam duñu àgg ci am ay nit ndax toujours daanaka duñu sori genn sori gi hmm. ndax dañoo mel ne ñu ne ci digg àddina bi waaye ñu nekk ci hmm. sedd lool ba ay nees di am ak yu demee noonu hmm. kon loolu sëñ Mbàkke Buso nag léegi li mu moo tax mu samp nga xam noonu ngeen koy gisee montre boobu noonu su ko defee takk ndeen boobu rek mooy bu àggee ci dëdd bi foofu lay xamee ne léegi midi zéro jot na mu def midi zéro ci jot na ci temps universel bi moom du mos a mukk ndax addina lay ànd kii bi la àndal ci la xamee lan mooy waxtu kañ la waxtu yi bu dee koor kañ la ñuy dog mhm. ak jant bi kañ lay fenk fajal kañ la jot lu jëm ci ajzaul salaat maanaam lépp ci la koy xamee mhm. ci la ko liggéey ba liggéey ci téere boo xamante ne si mi ngi ko defar ci 33 cent tey boo gisee mujj yi ci Sénégal yëpp jàkkoy seen i waxtu julli ñu ngi koy jëlee ci téere boobu fii ba Dakar mm-hmm. yàlla def na application yu bees yi nga xam ne dafa jógee ci réew yi yi sax bu dikkee loolu a àndal mm. day gàtt léeg-léeg guddi gi yàgg léeg suba gi mooy gaaw mm. yooyu yëpp nag day feeñ ci waxtu julli yi mm. euh, loolu nag liggéey bu njëkk boobu liggéey na ko ci boo xamante ne si ci gàttal tubaab yeeg yëpp souligné souligné nañ loolu ñi fi newoon doon ay colonisateur soo demee ci archives yi ñu fi bind bàyyi ko Euh, seex bu nekk ñi koy fuglu ak sëriñi tarixa yëpp ku ci nekk ñi wax calam nekk ak la yëngu am na foom bañ egsi sëñ Tuubaa dañ moom day ma ngay bëgg a ay téeréem hmm. ki la daanaka àgg na ba <laughs> mu àgg waaye moom hmm. nga xam ne tey Afrique mënees su ko tudd di xam-xam hmm. te tuddoo ko muy ku ñuy wax Cheikh Anta Diop am na benn as documentaire documentaire boo xam ci moom lañ ko def ki nga xamante ne si mooy Alain Zilé mi nga xam ne moo koy jàng di français hmm. am na ci diggante boo xam ne ma ngi ko jàng ci téere bi nga xam ne moom la sëñ Mbàkke Bousso taalif tudde ko bi Seex Anta taalif tudde ko euh, nation nègre culture hmm. téere ba Seex Anta Jóob ci boppam wax na ci ne moom li ko gën a sóob ci wàllu science hmm. sëñ Mbàkke Bousso la ndax dafa jaar fii ci Gédé ba wax ne mooy jëmm joo xamante ni si lu niis niis niis jant bi moom xam na fa mu toll na koo fixé dem boo ay termo termo yu yu yéeme yu muy wax foofu sax yoo xam ne sëñ Mbàkke Bousso da koy defar yu jëm ci wàllu science yu mm-hmm. eh, eh, kon du am solo ki ñuy wax Cheikh Tidiane si mm-hmm. nga xamante ne moom it taalifoon na mm-hmm. moom moo doon ancien ministre moom it même foofu la jaar ci tàgg ci sëñ waaw tubaab yi nga xamante ne sax comme noonu ma ko waxee loolu asif wax nañ ko waaye am na tubaab boo xam Paul Marty lañ koy wax yoonu murid yi ku ci daan bu dee ci murid gi sax comme ñoom tubaab yi jubuwoon woon sëñ tuba mm-hmm. loolu tax na te dañ ko yebaloon te sëñ tuba mm-hmm. mm-hmm. dikk mel na lu weddi loolu ba nit ñi di gën a fonk niñ doone africain niñ gën a doon a doon wolof tax ñi gën koo ind ci kilifa diine yëpp ànd ak loolu lépp sax ñoom biñu agsee sëñ Mbàkke Buso bi bind ci moom it xam-xamam bu bari rek ci la ñuy wax ak cadre dans solaire boobu nga xam ne mi ko doon def foofu ci mbusoo bi hmm. wane ne moom ay heures boppam la yor suñu bàkk mbusoo yooyu heures yi nga xamante ne si moom la ñeneen ñi di yooyu yëpp wax nañ ci xóotal nañ ci bu baax a baax baax du mën nekk ndax li tax mën la da koo def ci fanweeri at ak ñett hmm. dafa hmm. ci liggéey te naa doon loo xam ne day soppiku fanweeri at ak ñett dox jant bi dëgg dëgg ci lay bi mu fenkee ba bi muy so mm-hmm. waaye boo bëggee xam saison bu nekk tàng sedd lu ci nekk ana nan la la wan waxtu moo ci war a jot loolu mënoo koo def ci lu néew 3300 moo tax mu liggéey ko ci maanaam daal loolu bu ma la déggee mm-hmm. day firndeel ne sëñ bu so mm-hmm. euh, loolu coono boobu yëpp ay lekk ak naan taxu ko woon a jóg mooy julli moo ko ñor ñim sonn ci temps bi ak jant bi ak weer bi ak ni mu mel yëpp kon jullee ko ñor kon léegi euh, gédé ak julli hmm. ak juma hmm. hmm. gédé euh, juma ji ban année la fekk na ko fi wala moo ko rëdd wala kan moo ko rëdd waaw balaa boobaa sax téere boobu ma lay junj ak loolu nga xam ne sëñ Mbàkke Bousso moom la ko ñëpp xamee nee la léegi tubaab yi seede nañ ko Cheikh Anta Diop Cheikh Tidiane Sy ñi nga xam ne sax bokkuñu moom domaine ci tubaab waaye tey bëgg waroon wax leneen sax gis nañ gis nañ dëgg la waaw hmm. loolu nag day dem ba ci waa Murtani bi mu àggalee téere boobu daa wax Cheikh Abdoul Khadir al Kumlili hmm. daa wax ne li Cheikh Mbacké kitaabun fil yawa fil mawaqiti hmm. yaa ni'mahu min kitaabin kal yawaqiti li ahli seen gaala abda cheikhu qiblatahum wa waqata suhra fihi ay tawqiti cheikhu Mbacké imaamul asli yaskutu li fil ilmi xayra fatan min ali axiti loolu boo ko déggee mooy sëñ Mbacké bu so taalif na ab téere boo xam ne mi ngi jëm ci waxtu julli yi mu ne téere boobu amul morom ba daa mel ne wulu si dund wulu si mu ne sëñ Mbàkke Buso génne na xiblab Sénégal loolu yi dama ko fàtte woon xibla penkub mm-hmm. Sénégal nee na moo nee na moo fi andi midi bi ma la doon wax la ci jublu mm-hmm. nee na sëñ Mbàkke Buso mooy imaamu jamono mooy borom jamonoom kon loolu boo ko tuddee mënoo bañ dem nag ci xibla mm-hmm. xibla bi yi Tuubaa ji nga gis moo ko jëmale xibla ba fii may waxee yow jumaa joo gis ci jumaay muñ di wala dara ak njabootam ñooy ñi nga xam ne ñooy génn xibla bi xibla boobu domaine bu yaatu la moom it nga xam ne léeg-léegi dana sukkandiku ci jant bi wax la ne la xibla bi bu jant bi buñ tollee waxtu sàngam jant bi mi la kaaba gi jub la jant bi lañ bëgg a dàkk te gisuñ a ko woon waaye tey ma ko tiim hmm. euh, bi nga ko tiimee nag suñ nekkee Sénégal ñun ñi ko féete sow ci waxtu woowu suñ takk day jëm sow topp suñ ginnaaw jëm ah. su boobaa boo bëggee xam penku bi fi ne nga taxawee jublu penku rek su la neexee nga wëlbati ko jëm ginnaaw hmm. jàkkaarloog sab takk ndeel ndax ma ngi la féete woon saw day doon takk bu jub boo ko gisee nii hmm. fi nga taxaw boo taxawloo nit fële mu taxaw nga teg fa mool say tànk nga teg fi mool xam nga ñaari moo ju jàkkaarloo loolu fi nga taxawoon yow mm. ka la taxawaloon ca sa takk ne jëm ca sow ba ca sa bopp foofu mooy doon buntu sow ba bu doon jàkk bu fekkente ne jàkk ju mag la bopp loolu it da ngay taxawaloon nit ay nit rang rek ba mm. fa takk ne ba mujj foofaay doon buntu sow ba loolu la la nga xam ne boo commencé say móol mm. wala sa dara soo demee it takk ne dem jant dem teew loola xam nga ne xibla la loolu am na beneen loolu nag am na borom xam-xam yu ko ci jiitu woon waaye moom da ci liggéey lu yéeme mooy internet amutoon ah. xam xam mhm. xam foofu koy xamee hmm. météo waaye loolu kon am na borom xam-xam yu ko ci jiitu li nga xam ne nag kenn jiituwu ko ci hmm. moo dem ba seetlu ne Touba am na ay waxtu yoo xam ne ci ak yu demee noonu buñ ci àggee loolu du doon suba gi ngoon nga lay doon bu la jant bi féetee ginnaaw hmm. nga xam ne sa takkandeer mi ngi ju sa penku su hmm. boobaa loola penku lay doon day jub kocci du jëm sooytug hmm. nga xam da koy bay dinaan li sillika sallil ansla in kunta fi maa yeli tuuba loolu mooy bu fekkante ne àgg nañ fukki fan ak ñaar xam boobu mooy si ñi ñuy wax waa berber ñoom ñoo ko daan jëfandikoo civilisation yu moo jiitu juddug Seydina Isa nga xam ne moom la ñuy ñun naan 2020 wala 21 moo jiitu it hijriya nga xamante ne si moom la wax ay 1443 ak euh, yu demee noonu bee beneen civilisation bu nag bu ñu àggee ci bis yooyu noonu nee na sa takk ndee féete rek noonu la sa penku féete ba ko waxee it bi ñëwee ba nouvelle technologie dikk ak yëpp amul dara loo xamante ne si jamono weddi ko ci jumaa yi mu na bis boo xam ne daa wax ne Touba Euh, bu fi jant bi féetee kenn du am takkandeer waxtu zawal maanaam midi boobu ma lay wax daana du am takkandeer lépp lu jub kocc rek loolu mm. lépp liggéey na ko kon ci waxtu yi ak noonu li nga laaj nag waaw li ma la déggee ah, ah. gëstu am na ci mais dafa ci mag yàlla ci ndax ci mm, mm, euh, bi nga ne si moom ci boppam wax na ne wa isaa rafaxtu min al midaadi kullu lazin kullahu saa su ma yëkkatee sama xalima bay bind ni borom xam-xam yëpp di def mooy di xalaat di bind waaye man baat yi ñooy dikk di ma wax bind ma baat bu nekk naan bind ma maa gën a jekke ah, te ku néew lu mu doon wax xan baax la sax hmm. moom ñu mu wax na ne gént na euh, te géntu nit ku baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na buñ xaajoon ak yonent ñeent fukk nangam benn la ca maanaam géntu nit ku baax ilham lañ koy jàppee hmm. mënees koo jàppee wax yi comme wax yonent waaye mënees na koo jàppee loo xamante ne si ab leetal la bu jugee ca kaw moo tax sëñ Mbàkke Buso wax na ne moom gént na ñuy def ay récolte ci ab dënnam daal koy lonk te lawxul na muy sotti ba tuuru nee na njëkk loolu sëriñ sëpp yemoon lépp loo xam ne mbind mu ñuul la su ma ko xoolee am lu ma ca xam am lu ma ca xamut hmm. waaye nee na lii bi ma dalee léegi booba laa def lépp luy ñuul ci téere su ma ko xoolee xam ko loolu moo waral mu daan wax ci ñaar fukki matière ak juróom te bu ci nekk bu ca waxee nga teg ne bii doo nga la xam hmm. am na ci yoo xam ne kenn mënu laa wax ko ko jàngal référence euh, yi di téere rek la am te mabadi ya lay doon sax mm-hmm. te teewul day dem ba ci weranteeg ñi nga xamante ne si dañ caa def spécialiste mm-hmm. te su boobaa ñoom bu ca weranteeg ñoom dañ koy nangu ci gànnaar mm-hmm. ak fu mën a doon loolu mën nañ ko jàpp suñu bekk bu su kon bu ko defee laaj yi dama laaj nga baal nga baalal ma fàttali ma laaj yi ndax astronomie bi dama cee waaw bu dee alxuraanul karim yàlla da ko cee may ndax dafa taalif ab téere boo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy tudde risalatun fii ilmi rasm alxuraan ni ñu koy bindee rek comme nañ ko daan defee ca ngaay noo koy bindee noo koy beqeeg yu demee noonu ndax francophonie al doolul francophonie yi mooy réew yi nga xamante ne dañuy làkk français yëpp dem nañ ba def ak mbootaay di wut ay concours yoo xamante ne si ku dàq bind te doo ko xool lañ wax bopp wala beq mm. te doo ca def ay faute dañ lay neexal concours bi da nga koy dégg Sénégal wàllu dictée mm. ab professeur taxaw di wax étudiants yi di bind buñ paree ñu xool ku ci dut yàq ñu ne premier di leen neexal boo demee réew yi nga anglais ñoo leen ëmb noonu la ñu def hmm. loolu am waral mooy aw langue lañ daan wax kàng mu jigéen alxuraan ba lii xew ci internet yi hmm. li muy am am solo mokkal alxuraan mën a tajwid gi gis nga ne mbind mu rafet jóge na fi bu njëkk nañ ko doon bindee ci ak mën a bind alxuraan te xool dañ naan machine hmm, hmm. te du ko hmm. bind te du xool wala bu ko defee dana ci def fot loolu doyut mag ñi njëkk ñi mokkal moo tax ñu daan wax fulaanun xafisa alqurana rasman wa tajwidan diw mokkal na alxuraan ci man koo taji man koo jàng waaye mën koo bind moo tax tey kaamil

te pour wax la foofu sax mm-hmm. tubaab yi tàyyaloo gu ñu tàyyaloo di daal di raar ah, dëgg la daal xalima ni muy raare ah. léegi mm-hmm. yooyu nga war ñu ngi ñu sànq dëgg la te lu amoon barke la mm-hmm. te boo seetee ñu bëri dañ koo teg ñàkk avancement te ñoom moo ne dañu xañ ba pare daal ñu koy joxaat ndax ñoo ngi jënd ay pilim di jënd ay encre ba fii may waxee yow te ñoom ñoo koy liggéey ñoo koy liggéey kon nañ daan nañ ko daan defee ñoom bind nañ ko da am lu ñu jox Mm-hmm. waaw moo tax da toog lu yàgg doo gis xasaw a jàll bud bit déedéet waaw mu ngoog waaw tubaab daal ñu ngi kon daal euh, gédeek alxuraan waaw sëñ bu soog alxuraan fii cosaan alxuraan la mm-hmm. léegi euh, mm-hmm. euh, da fii gis fii Sénégal benn xale bu mokkal alxuraan wala mu tari taj wi day doon ne miracle te fii sa daara ji ku fi bëggee indi xale bu ndaw bu mokkal rek mën naa la ci génne léegi fii Euh, fii loolu du fi li naan menuisier daaj bandu ndamam daal mhm. mais nekk fii mhm. géde mhm. doon xale bu mokkal alxuraan alxuraan du fi miracle daal dëgg la day euh, firndeel liggéey sëñ <laughs> uh-huh. mi ngi ñu ngi koy soxat ba léegi daal ah, alhamdulilah euh, maanaam sëñ Mbacke Bousso mu liggéey ci alxuraan alxuraan nag boo weesoo ñi ko mënta bind mhm. gannaaw bi fi Seydina Ousmane jógee arrasmul Ousmane yi réewi mhm. lislaam yëpp mhm. nga si ko am day wax ne alxuraan ni lañ ko dafa wax ne euh, am na ci ñoo xam ne ni ñuy bindee alxuraan dëgg la am na borom xam-xam ñu ko wax waaye loolu du wax ji ëpp doole kon dañoo war a seet wax ji ëpp doole ñu topp ko loolu wax na ci wax am solo yoo xam ci téere lañ koy jàng mënees si ko expliquer ci ay émission yu demee noonu euh, lu bëree bëri bëri ci waa charq muy waa orient ak waa maghariba mooy ñi nga xam dañoo dëkk ci saw bi ci jullit ñi mm-hmm. niñ koy bindeeg benn benn yi wuuteeg mm-hmm. wax ci wax di yaatu boobu bi taalifee li wax léegi ne la bu nekk bu ca bindee ña ca gën a doon ay spécialiste mm-hmm. ñooy jël xalima tàgg boobu am na ñuy waxati cheikh abdul qadir al kumlili wala yu demee daal dafa wax ne haasi muqaddaratun kaanat taalif na ci téere boo xamante maanaam dafa mel ne jàng boo xamante ne si ab jàng xam nga ab jàng bu ko mag ñi waxee mooy koo xamante ne si xamagut góor góor xamu ko maanaam matière la boo xamante ne si kenn mësu koo jànkonte ak moom fii ci mi ci lim ci bind nee na kenn mësu koo wax jàng buy bëgg a sëyi te te sàmmoon boppam suñ koy yóbbu ca borom këram ne ko góor ñëpp umpule même kiñ ko may te joteegut ak moom mu ne matière bii nee na noonu la ko ñëpp umpule woon moo tax mu ne haadi muqaddaratun mu ne kaanan muhajjabatan nee na dañ koo yiiroon mm. dañ koo yiiroon mooy dañ koo nëbboon mm. ci xayma yi ni ko naar ñi daan defe nanguñ jënn góor gis ko xan mm. xayri fikri imaam Cheikh Mbacke Bousso mu ne xalaat bu xalaatu sëñ Mbacke Bousso nee na xamutoon euh, xam-xam bii ni nga xamante ne si jàng yi noonu la ko ñëpp upp ko um, ku ko tëkkagut noonu nga ko umpulee ñëpp umpulee ko noonu ba mu ne xatta jalaaha nee na nag noonu la ko moom xam-xam boobu mu mel ne jàng mu daal di jox ñun waa Sénégal ak waa Mauritanie hmm. ba bu yeggul am na ko ñox Cheikh Ahmad Kouli nga xam ne doon taalif ci ilmul Qur'an ulumul Qur'an hmm. ak mag ñu njëkk ñi liggéey ci sous-région bi hmm. fi ne référence yi na ci lim ci jëlsee fii ci Guédé ngir wane ne sëñ Mbàkke Bousso ñi njëkk a la te kooku sous-région bi ñi ko moo fi ëpp xam-xam ci ulumul Qur'an bu ko defee nag loolu nag moo tax li nga wax léegi daal ne Guédé buñ ko waxee ak alxuraan ku ñu wax sëñ Modou Xabbaan Mbàkke naa wax ne moom day sëñ atteex doomam ne ko demal gede nga jël fa jàng alxuraani gede alxuraani gede moo tax ñun ñëpp avant ñuy dem ngaay fii lañ mm, dale waaw man maa ngi dale ci ku ñuy wax sëñ Muxtaar fii ne maa ngi fàttaliku ñoom bu ñu lay sax dañ la ba miim alif laam laam ho waaw ah, ñoom sax waaw li ma la ci bëgg a wax mm-hmm. mooy xaj na wolof yi sax niñ daan ngir bëgg loo xam ne pédagogie lay doon xale bi xàmmee ko bañ leen ko ay xayin ginu xayin ginu till mm. loolu lépp pédagogie waaye ba fii may waxee yow it te lool lépp xam-xam a tax liñ naan boole. Mm-hmm. sëñ Mbàkke Buso boo seetee fonk ko. Mm-hmm. ndax boole am na ci problème boo xamante ni si ñàkkoon a jàng sori ci xam-xam la. Mm-hmm. lool andi woon ne dara ci boole. moo tax sawar loolu ci boole. waaw moo tax problème yu bari yi ngay gis boole yi di ko lijjanti. xam-xamu arab mën na koo dindi. mën na koo dindi ci misaal daanañ jàng ca daara ja ñi ne. rusu ci boole ya ah. ah. rusu lana rusu la fil muminina wal hadid ma am bi wa gafilin nasid mm. loolu mooy rusu rusu lana nee na saar yi nekk loola mm. muminin hadid yunus gafil ngay mm. eh, xam nga ñu fonkoon ay boole lañ ak lenn ci daal kajoor yi man la fii fonkuñu woon daanaa gis yi ñu ne wal arda nangam la ci alquran wala ñu ne la xalaqa as-samawati foo ko fekk wal arda moo cay topp du doon mukk wal ardi loolu boo jàngee arab tuuti wala borom xam-xam yi ñoom mën nañoo bañ a jël ndax rusu lanaa laga toujours la ko def la loolu ay régal la ci wàllu naxwu ak yu demee noonu hmm. xalaqa samawaati li tax ñu ne fekk wal arda lay doon hmm. da lay doon du dara lu dul al arda aatifun wa maatufun la ci mafulum bi mi ko jiitu di asamawaati rek yooyu ay takk-takk la yoo xamante ne si léeg-léeg nga daal di gis loo xamante ne si problème mu maxaarijul xuruf la woon hmm. léeg-léeg da gis ñu shuhu shuhudan shuhudan bi siinil mojama maanaam shuhudan bi siinil li daan wax siin su tooy hmm. wala nañu la ñu ne bi saat ñu ne ma nga nangam shuhudan ma nga nangam hmm. loolu problème mu ñàkk a mën a maxaarij al xuruf moo ko waraloon waaye ki ko man boo ne ko shuhudan ak shuhudan rek mu xam hmm. bu ci nekk fa mu taxaw mais foofu nu mu fi ñëwle bu ñëwee ci entre parfois ki jàng daara nii na bar da ngay seen jàngkatu daara bi mën na bar te li ñu wax day day jàpp ne kii mi ngi yàq alxuraan ci beneen bi kii jàng warsa ak afsu léeg-léeg itam dinañ am jot problème ba doo xam ba kenn ku ne day jàpp ne moo nekk ci dëkk waaw li yan leeral nga mën a indi foofu tamit maanaam euh, dañoo néew doole mm-hmm. yi mm-hmm. ba tax léegi naar le nañuy jànge alxuraan ñun noonu ko bëgg di jànge mm-hmm. yàlla teguñu ñi koy jànge nañ koy jàng ñoom ci ay li ñu naan almaqamat as-sawtiya maanaam nañuy daaneele dëgg la nag ñooñu ko dàq ndax ñooñu ciy jiitu xaj na ñooñu ko gën a neexle baat mën naa nekk loolu waaye yàlla topp ñu ñu ci ne kuy jàng alxuraan mm, man nag ku fonk tajwid laa sax te ku mm. fonk Cheikh Mahmoud Khalil al-Husari laa mm. waaye ànd ak loolu moom na muy defee ay maqaamaat sawti yaag yu demee noonu wala Cheikh Abdoul Basir wala keneen ak keneen yàlla toppewuñu ko noonu ndax loolu ñoom bañ dikkee lañ fent seen i daaj li ñaan al maqaamaat sawtiya suñ borom lim sàkku ci ñun mooy njàngin wi wér njàngin wi wér su wéree rek noo ko defee baax na mooy waral réew si dañoo gëm seen bopp sax Hmm. da ngay gis ne dañu am seen air yi bopp tey boo demoon Soudan hmm. wala nga dem Mauritanie yi ñoom duñ nekk di koy ay borom xam-xam yooyu hmm. dañuy wut seen daaj bopp alxuraan nag ñun suñuy mag am na nuñ ko daan jànge njàng mu wér wu leer moo tax boo indee ya nga war a andi ay runna ibxaam ibxaam ay ixfa ay iqlab yooyu boo ko indi daal jeex na ne la noo ko mën a jàngi daal ku la critique hmm. daa am complexe rek dëgg la nag man sama bopp nag man damay taj wii dantu léeg-léegi te Cheikh Mahmoudou Khalil Husari laay roy waaye nag bëgguma cee topp nit ki parfois ñi génn ni hmm. tuuti dañuy dem ba mel lu xeb li fi nekk hmm. euh, da euh, euh, dem ba mel ne am naar ba mel ne liñ fi fekk seen cosaan dañ koy xaw a xeeb tuuti la yooyu tamit li ko waral mooy complexe complexe la rek ak teel a génn su fekkee jàngaluñ la fii ba nga àggal nga doog a dem mm. soo àggee loo gis daf lay gaaw da nga koy gaaw a naw mm, mm. su fekkee jàngal nañ la mbooleem li nga xamante ni si dañ ko war a jàng Sénégal yëpp nga jàng ko ba noppi soo génnee au lieu que yow ngay ngay naw ñooñu ba leen di nangul mm-hmm. am na wet yu bari waaw kay am na wet yu da nga leen cay xeeb am na wet yu bari da nga leen cay xeeb mm-hmm. mm-hmm. ndax da ngay gis ne alxuraan beq gi nga ko def da koy mën a bind loolu ba ñoom buñ boo bindee da leen di yéem. 2007 euh, am na ci daara yi ko ni nga ko xamee ni ñu jàng alxuraan. dawuñ fay. dawuñ tëdd fu neex. waaw njaxas lañ daan lekk. lekk yooyu <laughs> daara ju métti. daara ju métti ànd ak loolu lépp man ak ñoom suñu métaat rek. ñun ñooñu bañ demee keer mm-hmm. bañ demee keer mas nañoo def tout mas nañ fa organiser benn concours. Mm-hmm. alxuraan tañu ñun 100 pour cent lañ am. 100 te loolu te loolu. Eh, nu mu tuddee cosaan bi nu daaree. Eh, daal di daal di suñu jóg lañ ko jàng jóg mooy kii bi mooy cosaan bi mooy cosaan bi. Hmm. mooy li ma doon wax naan nga xam ne loolu dem jógee ñu lay xet. loolu ci mi ngi doon doon ala mustawa jumhuriya hmm. maanaam république bi yëpp. Hmm. région bu nekk booba ab buur bu nekk Arabie Saoudite ku ñu doon wax Bandar. Ibnu Muhammad Ibnu Abdurahman moom moo organisé woon loolu nga xam ne ku am 100 pour cent. 200000 lañ lay jox booba mam sëñ Matar ñun ñëpp 200000 lañ am te ñu ngi ko jànge fii ci nit ñi mhm. ca digg ngaay mexe ca Kajoor kon li ma lay wax mag ñi amul lu ñu leen mën a xeebe ci alxuraan te sax bu fekkonte ne ñoom dañoo dikk nañ ko doon jàng tefetu bi mhm. yonent bi wér nañ ci hadis ne wax na ne képp ku jàng alxuraan dina am na bi yàlla dina la bindal ñaari tiyaaba mhm. jéem gi ngay jéem yàlla dina ci bindal tiyaaba ak jëmi jàng alxuraan ba tey kon moo tax sëñ Mbàkke Buso mi li mu ci bind Cheikh Mahmoud Hasan Buso Dakar la nekk lajnatu tahkim maanaam membre de jury yi ñu def ci alquran yëpp ci concours international dañ ko ciy woo. dañ ko nee na wax na Tunisie ne ci Sénégal suñu réew suñu mbokk moo fa gën a xam ilmu rasm kon ñoom lañ xamoon ci alquran ñun xamaguñ ko ba tey ba fii may wax ak mm-hmm. bi sëñ mbàkk bi su bind téere mm-hmm. tafsirul am xama mm-hmm. la tafsir ci xam waaye tafsir bi nga xam ne ilham la mën nañ ko bañ jàng ixlaas gi ñuy def ak jëfin wi ci la leen yàlla suturaale ba am yu mu leen di xamal ci mbooti alxuraan loolu àggaguñ ca ba tey mm-hmm. kon ñii génn di complexe looloo tax ñun ñi ñëpp bi ñuy jàngi arab mm-hmm. foofa lañ fa doon jàngi mënuñ laa wax lan la <laughs> ndax bañ àggee bëgguñoo nekk xañ ne di wax ci suñu bopp waaye suñu njàng baaxoon nañ ba dañuy mën a àgg gis na lañ fay wuti daal ñooñu boo ay way mm-hmm. def nañ ay way ci arab ba ñu àgg ay way ci arab nga koy mën a jox koo xam ne am naar la te bu lii dee kon fii li fi nekk luñ ci xeeb nekku ci. macha hmm. allah euh, jërëjëf euh, sëñ naa Bousso. Hmm. kontaan na bu baax ci waxtaan bi mi ngi leer. Hmm. léegi dafa am sànq da ngay wax ci alxuraan. di wax ci julli. di wax ci sëñ Mbacke Bousso. sëñ Mbacke am ñaari doomi sëriñ Touba yoo xam na que sama xel dafa dem ne dañoo nuroo ci lu bari ñoom dañ leen jàngal wala comme sëñ Abdou Khadir euh, imam di doomu sëriñ Touba di waajuru sëñ Bass Abdou Khadir ak. Euh, sëñ Modou ak ñëpp njaboot sëñ Bass Abdou Khadir yëpp ak sëñ Cheikh ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax sëñ Modou moom yàlla na yàlla tas ci barke bu baax a baax njabootu sëñ Abdou Khadir ak njabootu sëñ Soy bu Mbàkke di waajuru sëñ Abdou Samad euh, sëñ ak tamit euh, sëñ Abdou yëpp dañ gis ne kii da koo ci lii ci ñoom ñaar ñëpp sëñ Abdou Khadir nuyu na ko ci julli sëñ Soy bu nuru ko ci alxuraan dañ leen mas a yar wala dañ leen ko joxoon wala nu demee noonu waaw hmm. moo def Gédé Gédé la defee lépp. Gédé la defee lépp. moom ndaam fa lañ ko njëkk a joxe ci sëñ ndaam Abdourahmane Lo waaye yeggu fa. Mhm. sëñ ndaam joxaat ko sëñ Mbàkke Buso. joxaat ko sëñ Mbàkke Buso sëñ laaj. moo ko laaj. Mhm. bi mu dikkee sëñ jox ku ñuy wax sëñ Birahim Ndiaye. Mhm. nekkoon ci wanagam di fi jàngal alxuraan mu jàngal ko ba mu jàngal ko lépp te mag ñi nag bëgguñu woon nga jaar jenn daara loolu taxoon na mu a ko léegi lu mel ne siiro mm. ñëwel nga dem jàng ji ko sëñ moo dem mm. moom yeggu fa sax xañ na at sax la ko jàngi daal di dikkaat mm. moom léppam ba ni mu gi ci gëdee lépp moo wax ñi seex si ko ko keroog moo dem daal di santaane ba ni mu fii ba ci fii ci Baxdaad nga xam ne ci wetu gëdee la ba tey moo ko daggaloon jox ko ko wala doomam moo ko daggal jox ko ko kon moom léppam da gën moo waral sëñ Mbàkke Bousso euh, sëñ Abdou Khadir di ku taasul ci moom. Mm-hmm. dafa influencé wu ci sëñ Mbàkke Bousso. ci fonk charia mm-hmm. nanguwut lu bëree bëri. mën naa doon loo xamante ni si sax xaj na ayut waaye da nga gis mu di ko tere ngir sakk ab bunt boo xam ne am na leneen lu ci war a mën a ubbi ko waaw moo gis moo léppam di alxuraan léppam di julli léppam di charia loolu moom jeexitalum sëñ Mbàkke Buso kenn nattable ko bu dee ku mel ne sëñ Soxay bu moom sëñ Mbàkke Buso yaru ko mm-hmm. waaye léeg-léegi loolu day am nit ku nekk da ngay xëy daal di màgg am koo xam mm-hmm. aw dooxe yi dem neex la mm-hmm. nga jël ko def ko sa idole ci loolu mu doon sa rëy ndax sëñ Soxay li mu daan wax suñu mbàkk bi sa xaj na du waxi télé dëgg-dëgg bi mm-hmm. waaye la ca gën a tuuti mm-hmm. euh, sëñ Abdou Khadim moo daan wax ne sëñ Mbàkke Bousso day fees dell te du yëngu mm-hmm. loolu la daan wax bu musaane dégg ab yëngu daan fees dell te du yëngu waaw sëñ Mbàkke Bousso wax naan fees dell te du yëngu bu mu musaane dégg ab yëngu ci yeneen kër loolu lay wax dafay wax ne coow li dafa bari trop waaw te li ko waral léeg-léegi sax man ne ñoom ña àgg fañu àgg nag ñoo ko daan wax ne mm. léeg-léegi mbir ma demeewu fa noona mm. suñ ko comparé ak sëñ Mbàkke Buso mu ne ni mu nee nemm loolu sëñ sëñ son bi li mu daan wax jullit wax mm. xaj na ndax dana xaw a kii tuuti waaw dana xaw a euh, doy waar tuuti waaw ci sëñ Mbàkke Buso moom moomu ngay wax nag ak li ma wax léegi jiital ko sëñ Mbàkke Buso liggéey ko ci alxuraan moom it ab domaine am doonoon alxuraan ko dem sëñ son bi loolu tax wax yéeme la daan wax daf daan wax ne man de ñu bañ laa bokkal daara waaye alxuraan suñ jenn maam la ko doon wax amul kenn ku ma ko ci gën a mën ci bind ak yu demee noonu hmm. te lépp ci sëñ Mbàkke sa laa ko jànge maanaam ci mbindam li ma la xel motos mi bi ma la doon wax hmm. moo tax ñoom tey beqi ak bind mbind mu wow amul ku leen ci man ñoom waa kër sëñ Chouaïb ci yoonu murit ci daara yu mujj yi hmm. bu dee daara yu njëkkee ñoom sëñ daam moom Abdourahmane Lo la daal sëñ Chouaïb bu mën naa doon kilifa ak sëñ daara ci alxuraan waaye teewul loolu la daan wax ba ko waxee kenn ko doon wax suñu jenn maam la comme kilifa la daf koo tuddal ne

moo ko doon jël fii muy dem ñu toog moom gan gu mas am xam ne xam-xam ci lay yëngu it sëñ Assane Bousso mii lay woo bu ñu àggee ñoom ñi dalal ko ko maanaam moom dafa doonoon borom xam-xam boo xam ne daf ko doon bind loolu tax na ku newoon fii la dégg naa ci oustaz Cheikh Awa Balla Gueye ñoo mu ne am na suñ benn waajur bu fa newoon ku ko ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk du ñoom dong nag mm. ku ci nekk rek euh, doomi Sëñ Tuubaa yëpp wax dëgg yàlla am na fu mu tegoon Sëñ Mbàkke Buso am na royukaay gu ko defoon mm. waaye xaj ñoom lañ ci gën a seetlu mm. xaj na nag liñ jamonoonte ak ñoom moo tax xaj na mm. euh, comme noonu nga ko waxee ah, jërëjëf jërëjëf kontaan na bu baax a baax ci waxtaan bi sëñ Cheikhouna Bousso xam naa waxtu baak ñuy dab lan nga jàpp ne war nañ fa dugg te gis na ne duggagul fa ñu dugg fa ci loola ñor lool waaw xaj na léegi màggal gi mm-hmm. euh, sëñ bi sëñ bi tudd na ko dafa am taarix ak gédé hmm. sëñ Maraye Bousso mi ma tudd léegi moo jur sama waajuru góor hmm. dafa nettali RTS hmm. nga xam ne un mois rek la dundaat sëñ Tuubaa waxoon ne ko ne ko bala nga génne àddina àddina mépp danañ la séen moom gudd na fan am na juróom-ñeent fukki at waaye loolu yëpp fàtte woon na ko xamut àddina bépp yi nuñ ko séenee comme dégg ñu ne dégg nañu ne borom xam-xam la rek jàpp na ne turam fi dem fépp bari na loolu séen gi nga xam ne wala dégg gi ñu ne ba 1983 sëñ Abdou Lahad Euh, faboon euh, màggal gi organisation bi yëpp mu teg ko ci loxo sëñ Moustapha Bassirou mm-hmm. wax sëñ Moustapha Bassirou ne ko sëñ loo xam ci màggal gi nañ ko RTS mm-hmm. ngi ko jël màggal Touba mm-hmm. gàmmu mu am daa mel ne loolu la doon xaar biñ ko tegee boobu ñoom daawuñu am télé daawuñu seetaan télé am na kilifa yu ko yëg dikk di ko ko wax am na kilifa moom da koo seetaan ba noppi dikk di ko bëgg a wax am benn sëñ Moulay joo xamante ni si daf koo kobos kilifa googu ne ko ne ko sëñ bi kat sëñ Blaat dafa yeble ngir ñu filmer ko te moom nanguwut génn ci écran nangu na nag ku ko enregistré kàddoom ne nekku yëgu ko moo tax kàddu gi lañ ko waxoon. nga xam ne euh, nga xam ne sëñ Tuubaa ci boppam moo nekkoon adduna bépp dinañ la gis. dinañ la gis nga xam ne loolu soxnaam benn soxnaam moo ko wax ne loolu sëñ Moulay mës na ko ko wax. Hmm. ne ko sëñ ne ko sëñ Tuubaa nee na adduna bépp dinañ la gis. léegi nag suñu soxla si yëble fi Moustapha Ndiaye ma nekkoon RTS moo dikk jël si ko. Hmm. sëñ Moulay wax na te lu yaatu ci màggal gi xañ na ñu bari ñu ngi koy publier léegi hmm. dafa wax ne bu ñu ci màggal Touba 1983 sëñ Moulay Bousso rek dana dikk mm-hmm. nee na sëñ Touba daf maa woo sëñ Modou Bousso magam mm-hmm. comme géree ak màggal gi mënu si bañ a laal mm-hmm. sëñ Modou Bousso mooy magam ñoo bokk ndey ak baay euh, daf ko wax ne ko boobu sëñ Moulay sëñ Mbacke Bousso jox na ko sëñ mu nekk foofu sëñ Modou Bousso yebal ko ñu wax sëñ Modou Xani Kan jox ko gàtt aw béy béy woowu nag da daan doon wu bari soow euh, bi àggee sëñ Moulay teg ko ci loxo sëñ Mbacke Bousso sëñ sëñ Touba. Hmm. comme sëñ Modou moom la ko yónnee. bi àggee eh, sëñ Touba ne ko ndax mën nga ma ko soppaleel am xaaf am xaaf mooy am koy. ndax dañuy bañ soow lool. léegi nag mu ne ko waa mën naa ko de nee mu daal di ko yóbbu ca séedéel sa séedéel sa séedéel bi sax daa ne cey sëriñ bi moom la xamut addina. daal batt bi boo ko xoolee rek mooy ween wi ak niñ ko mënee rat ak li mën a génne ci soow da nga xam ne moo ëpp fuuf doole. Hmm. moo am moo gën fuuf am xar mu góor. Hmm. wecc ko nee na ma di ko waxal ko sëñ Touba ne ko xar ma wecc ko naa ko mu ne ma waaw téyel ma ko nee ma téyel ko ay lenn ci ay fan mu ne ma woo man tey yii fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar mm-hmm. nekko ko rendi ko ci te boo koy rendi nga def ko niyaabatan an nii maanaam ma ci mel ne nga yéene man maa ko doon rey nee na ma rey ko mu ne ma defal ko ma defal ko ba noppi mu ne ma saam ko ne ko lépp loo xamante ne si am naa ko na ngeen xam ne ci bis bii laa amee kon màggal gi it mëneesu ko tudd te waaye li ci yéemewaat mooy nee naa la soxna sëñ Modou Bousso soxnaam sëñ Daaru soxna ummi si moo ko jox xar mi hmm. xar mi jógee gëde sëñ Modou Bousso mu jaar ci sëñ dem sëñ Touba hmm. nee na bi mu ko defee ba def ko ay saam it nee na daf koo ne ko léegi jox ko soxna Aminta Bousso mooy waajur sëñ Abdou Khadir mi nga doon wax léegi hmm. ko waat it beneen saam bi nga jox ko soxna Anta Bousso ñaan ko soxna Anta Bale Bousso nga xam ne même biñ ko defee ba noppi ñi ko ko sëñ Touba jox loo waat it ci kër gi lañ bokk waaye ay Bousso Bousso lañ kon moo tax màggal Tuubaa kenn mënu ko tudd te tuddoo ci gede xaj na loolu it am na ci loo xam ne des na ko jaadale tuuti sëñ Tuubaa bi nga xamante ne si def na xalwatu bi ci daarul Quddus mhm. bañ ne ko ba mu gis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mhm. am na natt bu mag boo xamante ne si nga ko te dana dal ci mhm. ci sa kaw faw nga mu dem ci boppam fii sëñ nga xam ne ci l'histoire yoonu murid bind na ci lu bëree bëri wax na ne sëñ Mbacke Bousso ci boppam moom la sëñ Touba bàyyi woon Touba ne ko man maa dem Jolof yóbbaale maam Thierno ngir su ma mu jàngale xam-xam hmm. yóbbaale sëñ Dame Abdourahmane Lo ngir su ma àggee mu jàngale alxuraanul karim hmm. ndax nee na li ko naqari woon mooy mag ñi nga xamante ne si liggéeyoon nañ ba wàcc dañoo am soxna hmm. mujj donga yi ñi toll ci tarbiya wu nee na ñi toll ci xidma ñi toll ci jàng ñëpp di jaxasoo leen doon génn kër te mag ñi bëgguñu woon loolu dañoo bëggoon jàngate alxuraan yi féeti nii jàngate xam-xam ñu dem ba àggal ba ay soxna ak yër lu mel lay day de di mbay di indil sëñ Tuubaa féeti nee nee na mu wax sëñ Mulaay ne ko sëñ mu wax sëñ Mbàkke Buso ne ko léegi yow desal Touba. képp kuy indeeti addiya na la ko jox. képp koo xamante ne si dikk na na nga ko seet bu ma matee jàll si Jolof nga doog koo yebal. su fekkee matu ko bu mu agsi. loolu it kenn mënu ko tëddee tudd màggal ndax Jolof sëñ Touba yeggu fa convocation bi dikk. nga xam ne bi muy dem ci nattu bi. bis bii muy génn. ba mu koy sàkku ji ngir dëkk bañ ko war a mën a fekk bi mu dem lépp sëñ Bakk Bousso la ko teg ci loxoom. moo tax sëñ Moussa Kane lii yi nga xamante ne si moom la sëñ Touba bind sëñ Bakk Bousso nee gis naa ci boo xam ne mag naan ko gis naa mu naa ko yaa di sa xalifa yoral lislaam ja te toogal foofa naan ko boo yaree mel na ne man maa yar ak yu demee noonu wax wax yaatu ba ne ko def naa la sax a talqiya a def na dikk ci yow def ko fa léegi man ma def tarbiya bi te li ñu xam ci euh, euh, ci maraatib yi nga xam ne tasawuf noonu lay doxee dañuy njëkk a def taalim def tarbiya doo ko def talqiya ànd loolu sëñ Tuubaa joxoon na ko ko moo tax kon màggal gi def naa ne waa Gédé wala waa Mbusoobe fii am nañ fi am nañ ci lu am doole loolu mënees ko cee bañ a leeral ba tey waaw waaw mu ngoog ah, ba fii may waxee sëñ Moulay 1920 mhm. ba 1947 ñu bari di ni nga gisee sëñ Fallou ko woote dañuy ñëw Touba mm. waaye sëñ Moulay 1983 nee na rayagu na juróom benn fukki xar xar la joxe woon moom nee ba màggal ko ko waxee ba ni mu génn àddina moom lay rey mm. nga xam ne dem nañ ba 1947 kon def na ko lu mat ba loolu moom euh, sëñ Tuubaa waxoon na ko. Hmm. ne bu ci kenn xeeb dara. li tàmbalee ci ganaar ba ci gileem. Hmm. waaye moom nag comme symbole bi liñ ko njëkk defee am xar la. waaw loolu moo tax waaw même daana rey lu mel ne aw nag. Hmm. ak ay ginaar waaye yooyu daawu ko limaale waaye nee na jëmmi xar moom. ba ko sëñ Tuubaa waxee ba tey. ni nga ko def ngir symbole boobu noonu nga xam ne moom itamit si moom lañ ci njëkk a def. léegi waxtu beenu dab. loo luy sab lañ ci looy laaj ci ak koy sant ko gërëm. waaw ñoo ngi sant ñëpp. ñu wan leen daara ji yëpp noonu ak. ñoo ngi sant bu baax a baax. Mm-hmm. di leen gërëm. macha allah yow eh, sëñ Cheikh ak mm-hmm. émission bi nga xam ne mooy émission Tektal. Mm-hmm. macha allah. Eh, nga xam ne wala seen bi nga xamante ne si mooy. scène bi Tektal TV waaw émission bi dafa tudd Tektal. waaw. scène bi tudd Tektal macha allah macha allah macha allah. di la sant di la gërëm bu baax a baax. di la encouragé di la ñemeloo. ndax fi Eh, yow jàmbar dëgg nga. Eh, jaar daala. Mm. ñu bari dañoo teg ne ku ko def. Mm. ay emprunté woog dawal sareet ak yu ñàkk fayda yi ci nga war di yëngu balaa na koy xeeb daara dafa gis ku génne ci daara. Mm. nekk ci ñakk fayda xamul boppam xamul alxuraan jëm yanu. looloo waaye tey am na ñoo xam ne su ma leen waxee maa ngi ñoo bokkoon daara nekk nañ fa lu ma juróom ñaari at mm-hmm. dañ koy weddi ndax man bi ma génnee xaj na maa ngi yëngu ci leneen mm-hmm. muy xam-xam ak yu demee noonu ak jàngale mm-hmm. yow yaa ngi yëngu ci métier moo xamante ne si it moom jàngale ñooyam ndax jàngale fardu la dafa am ñu tey nekk rek mu wàcc julli ñi ci ñëpp bu ci kenn nekkutoon nag am ñu am bàkkaar waaye ginnaaw am nañu ci nekk wàcc nañu des ña ca des la ñu a def mooy dem di yëngu ci àddina yoo xam ne hmm. mën nañ caa seen bopp teral ci seen i kilifa ndax su ñëpp jàppoon ci alxuraan ji kese dana am yenn wet hmm. sooxe ci alxuraan kon ñoo ngi la ñoo bokkoon ah jaar na kon mokkal na alxuraan nangam nangam nga xam ne duñ xam ni mu kon nag yow maa ngi sant bu baax baax di sant mbooleem ñi nga xam ne ñooy seetaan Euh, ak sa tuddal ku la neex sa télé nga nekk à part deux heures loolu la neex waxal Tektal TV waaw moom suñu sëriñ bi suñu sëriñ bi moom faaw ñu sant ko euh, sëñ Abdou Samad sëñ Abdou Samad moom suñu soxna bi ndax moo la fa yebal waaw moo la fa yebal sëñ Abdou Samad hmm. euh, dafa may booleeg sama xarit ndax mën naa ne sama wëllëg la woo xam ne que hmm. dem Égypte bi hmm. moo waral suñu relation lu bari mujjoon sooxe te ba ni muy demee Égypte dama doon ñëw fii Gédé di seet si ñi fi dëkk Gédé yëpp mën naa la ko limal mën naa la libal Sidi Bousso Masamba soo hmm. Galas Bousso hmm. Baye Matar Bousso hmm. Khadim Fall euh, sëñ Mbacke maanaam sëñ Mbacke waaw ak euh, Khadim Ndiaye ak euh, Lat Ndiaye ñoom ñëpp daal fii ak Magu ñu ngi koy nuyu bu baax Magu soxna Khadim Ndiaye di doomu sëñ Mourou Diop bu baax a baax mi nu jàngal alxuraan kon Guédé moom suñ cosaan la suñ dëkk la te ñoom ñii tamit di leen wax ne nit yi alxuraan la yoo xam nag nit yi xam-xam ci leen yàgg sol sonn kon ñi daal lan bokkal hmm. ñun ñoo xaw a waaye di rek mais bëgg nañ lu baax bëgg nañ ku baax te yàlla boole na nag ñu baax hmm. kon ngeen di ñaanal bu baax incha allah incha allah koy sant ko gërëm njaboot geeg waa daara waaw di sant waa Géré ah. gépp sëñ Abdou ñaanal ko mu yàgg fi tawé amiin ah, yàlla na fi yàgg lool tawé ah. moom comme yitte la comme yitte la wax dëgg yàlla hmm. ndax man moom xamutoon ne sax maag yow xamante nañ xamutoon ne ñoo bokk daara mu yebal la fi mm. loolu day wane ne rek mm. euh, ku am yitte la koo xamante ne si ku bari lu rafet lu muy def la mm. ku bari lu muy liggéey la ci ak bokk ak yu demee noonu waaw di boole day boole waaw dëgg la ku bëgg Sëñ Tuubaa la it euh, di koo xamante ne si ci li fi waajuram bàyyi woon rek ci la nekk muy diggante daara ak alxuraan ak defar rek kon moom it yàlla na ko yàlla yokk aw fanam mm-hmm. te yàggal ko fi te yokk ak wéram ak manam mm-hmm. waaw moom it mënees koo bañ a sant ñoo ngi sant waa Gédé gépp mm-hmm. di sant sëñ Mut Jóob mi nga xam ne mooy suñu sëñ alxuraan di ko siyaare bu baax a baax a baax moom it waaw di sant mboolem ñëpp rek waaw di siyaare waa daara jëpp alaaji bàcc naam Diop ñoom Cheikh mm-hmm. Abdou Diop ak sëñ Mbacke mm-hmm. ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax ak soxna May Diop soxna Bintu Sey mm-hmm. Abi jaw yaay Fati eh, yaay Soda ñëpp daal gërëm nañ di war ne daal këru alxuraan lañ ñëw te eh, kon sëñ Mout Diop daal eh, lan moo waral tamit daara nit ki jàng pare ñu ray lam boo wàccee loolu sabab xam nga. waaw loolu moom dañ ko daan def rek ngir encouragé ko. ngir encouragé ko. ndax dafa jafe ndax loo xamante ni si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci daan wàcc ci moom mm-hmm. ay métti la ci daan yëg mm-hmm. nga xam ne jibril daal di mm-hmm. ne ko iqra mu ne ko man mënumaa jàng iqra mooy jàngal mu ne ko ba muy ñetti yoon alquran yàlla ci boppam ne law anzalna haza alquran ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian alquran ji buñ ko wàcce woon ci Seydina Moussa taxawee ca kaw doj wa yàlla di wax ak moom hmm. bi waxi suñu borom ji accès moom dafa xam doj wa daal di daggte hmm. te te la ca nekk faw doomu aadama war koo xam ngir di ko jëfee suñu borom nag am na ko def wooyo falal ñu ko hmm. ban bu accès ci ñun duñ xaar na lu ñuy daj am na lu daj métti si kenn mënu koo daw ba doo ca jaar alxuraan faw nga sonn ci ginnaaw yénti ci sonn sallallahu alayhi su ko defee nag moo tax nit ki bañ ne koo baa Sëñ Tuubaa wax <clears throat> sabiyu في مكتب يكتب له يكتب له العلي لوالديه ولمن يعلم براءة من ناره فلتعلموا saa suñ fobee alliwa te ko ci pooji xale ne ko baa hmm. ci daara hmm. suñ borom nee na bind na ne waajuram du dem sawara moom xale bi du dem sawara kon loolu lu rëy la nit ñee ko bëgg a sofantal léegi rek hmm. su ko defee nag loolu lépp soo ca jaaree nag di jàng di jàng di jàng ba wàcc moo tax ñu la daan am xar Mm-hmm. comme nañ ko a defee ci suñ daara ja nga xam ne ñoom buñ la tekkat yoon buñ la rayalee am xar ba noppi sax mm-hmm. yow bopp bi ngay moom bopp xam ni yow yaa koy moom mennum yow waaw ak ñu beral la nga xam ne yow daal da ngay kii loolu nag li ko waral mm-hmm. mooy benn dana la dimbali ba nga xam ne def nga lu rëy wala turoon yam ak ñëpp léegi am na loo yoon muy alxuraan nga gën a góorgóorlu ñi ne ci daara ji danañ yàkkamti wàcc loolu dañ leen encouragé say waajur yi nga xam dañ laa joxe woon ngay mat di naan te doo leen gis di sonn ñu xam ne lañ taxoon ñu joxe la kat neenut kon loolu lépp mi ngi ci woon waaye suñ sëriñ boobu di suñ mujj jóg mëni si ko bañ a santaat ci foofu waaw dama koy santaat dafa am lu am solo lu mu daan def dafa daan def boo wàccee alxuraan mu ne la suñ mujj jóg ca ngaay mexe dara ji ci sëttu waaw uh-huh. dafa daan def boo wàccee alxuraan mu ne uh-huh. nag fii ne loolu mas na man wax na ma ko uh-huh. wàccee alxuraan mu ne la ferego iji mooy tàmbalee koo jàng loolu nag su la ko waxee léeg-léeg a kii tuuti daal jàpp ne da laa xeeb mm-hmm. da ngay yëg sa bopp ah, ah mm-hmm. man ma nim kaang ñenaan ma fete goo <laughs> waaye boo demee ba ci kanam tuuti ba nga jàng xam-xam mm-hmm. ba yàlla def nga uddugu ci ba sori ci te nga xamee ne lam la doon wax naan la fete goo iji ca nga koy xam ndax alxuraan looloo ca gën a tuuti muy mokkal wax léegi sëñ Mbàkke Buso bind nañ ci nan lañ koy bindee ak nan lañ koy tafsiire ak yee ci aju yëpp ñu naan ko ulumul xuraan boo leen tënkee ñoom ñëpp loolu lépp ko jàng lu mat ci ay at loo xamante ne si mën naa gën a yàggaat diggante ba mu jàng alxuraan hmm. ngir mën caa am diplôme ba gën a kawe kon lam doon wax ne mokkal nga wala waaye firigoy ji loolu ca nga koy xamee ndax alxuraan bu ñu tafsir ko rek dafa am yu bëree yu ci aje hmm. mu fassiré ni ci bopp ku nekk ak nam firee am na ñoo xam ne tafsir ayatul ahkam hmm. ne si balaa rab alxuraan lañ na ñoo xamante ne si ku nekk rek lam jël am na ñoo xamante ne si maanaam jëmmi luxal arabiyya bi ci nekk langue arab bi mm. littérature bi moom lañ jël ku ne ak nam tafsir ba mu àgg mm. Mm. loolu di ay école ci tafsir bala nga jeexal am ñoo ne ña nga jëm ci wàllu wàññi yi maanaam baat yeeg masque yeeg am nañ ci jëm am ne ba ko Seydina Ousmane sosé man astafurlah ba ko Seydina Ousmane kaamil yi nga xam ne rasmul Ousmane yi kaamil yi bindoo woon ak riwaayaat yeeg warsu boobu nga doon wax xaf soog oh. bu ci nekk am ñoo xam ko riwaayatul ansh am na ñoo xam ne ci loolu lañ def seen domaine loolu lépp ci alquran la aju kon ulumul quran sax daa amul fu mu moo tax booy doog a wàcc moo la daan wax firaw ijji bis boo jàngee ba ca kanam te nga xamante ni si ndéka firaw googu ijji joow joow lan la ci alxuraan lii <laughs> joow ci indi mag ñi ba terewuñ ko wala lañ ko moom lañ daan ming lañ ko daan wax moom la xale yi def ne euh, maanaam nit mu ne dégg moo jafe mu ne dégg moo jafe waaw hmm. dañ ko daan tete nag waaye kenn mënu ci dara <laughs> jàng naa ba tey di nan nii uh-huh. bu la féete bu la gisee sëñ mu jóg day dikk rek sa mbagg mi ba nga ne dégg mu wan la noonu nga war a def waaye bu demee tuuti nga tàmbaat ko maanaam nit boo gisee liggéey sax liggéey yu bari nit ki buñ koy def mm-hmm. da gis ci bu njëkk dañu nekk di wayantu mm-hmm. muy ànd ak ay kàddu yu kawe mm-hmm. am lu ñuy wayantoo soo soo fàttali ko bañ daan kuulaas kuule yi bañ ko daan def wala ngay taxan ni da ngay am looy wax rek di jàngantu wala ngay maanaam doomu aadama mooy koo xam ne léeg-léegi dafa am loo xam ne bu ko def muy ànd ak activité daf koy sàmm ba du yëg coonam li def du yëg coonam li muy def ñi ma baax na xaw ma baaxut mag ña nag daanañ ko tere waaye day mel ne yàqu ci dara waaw ak boo koy def hmm. seet naa ne boo mosaane def nii ne dégg di jàng day metti day metti waaye booy def nii doo ko yëg baaxut nag mag ña dañ ko daan tere waaye lu jafee moo tax gis naa ay xale yu jigéen hmm. ñii lay Cheikh Mahmoud Khalilul Xusar yi ci tajwid ñoom ñëpp ñu ànd di def nii hmm. ñi publier ko ci internet bi ay millions nit seetaan ko ndax dafa àgg ci tribunal yëpp ñii yëm njàngum senegal ak façon yooyu ma gis ci nag naat yoo xam ne dañuy taaliq dañuy commentaire di sikkal di ni ñu def la ñu war a bàyyi hmm. ndax euh, xaw ma lan waaye dañoo xamul hmm. ndax fañ ko àggale dafa àggut àggu fa dañ ne ñu naan suufi yi suufi yi ñoo koy def ñun hmm. suufiyanke yi mooy ñooy def leen huwa huwa di di kii yi noonu yu demee noonu waaw waaw waaye loolu waaw jërëjëf jërëjëf waaw moom day xanaa yow moom dama lay santaat bu baax a baax ak di la gërëm rek ndax suñ mbokkum daal nga namoon nañ la lool fajar la ñu gis la tey te jotaay bi yëgoo woon fi ñëw man it yëgoo yaa ngi ñëw sëñ bi sama dañu boole rek loolu kon ñoom ci sant bu baax a baax a baax waaw sëñ Jili Fata yàgg si loolu taal ah, ko ah, sëñ Seexuna ah. Mbàkke tamit maa ngi koy nuyu ak sëñ Modou Mbàkke rakkam waa Daaru Xuddoos mm-hmm. euh, waa Mbàkke Kajoor mm-hmm. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax mm-hmm. ku nekkoon daara ja Xaadim euh, Mbàkke moom sëñ Maam Mor Sam euh, ak kan Xaadim Fall nekkoon fi Gede Masamba Bousso ko ko fàtte ñi nga nekkaloon Sidi Bousso gërëm ñëpp waaw ñëpp rek waaw ñoom ñëpp ñu ngi a baax macha allah waaw jërëjëf kon jërë ngeen jëf sëñ Seexuna Bousso lan àndaloon ci Gede Bousso di jaajëfal sëñ Abdou Samane Mbacke soxna bi di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak ku wér di jaajëfal sëñ Mountakha Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak ku ak bépp kilifa diine ak képp ku bëgg lu baax ñun daal ci lu baax lañ bëgg dox ngeen kon ne di abonné ci Tektal TV ñi ngi àndoon ak docteur Wade euh, caméraman bi ak Baye Massamba Diop nekkoon ci équipe technique bi Petit Sow Gaw Sow nekk ci soxna May Diop ci réalisation bi ñëpp gërëm na leen Tektal TV lu baax jotaay njëriñ ci yëpp dina leen dëkk di leen ko indi baax a baax jërëjëf monsieur jërëjëf Diop jërëjëf